waaw dañuy wax jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba suñu yaakaari tey ak ëllëg loolu rek doy na nuyoo ci fii ñu toog waaye ñaari rakka yi moom dañ ko ak mbégte ak bànneex dama waroon a doore sax nuyu leen yéen ak seen ay internautes ak mbooleem ñi leen di seetaan ñëpp dund nañ ko ci alhamdulilah ndax Amadou Diop foofu di ko organisé day suñu góor di suñu xarit jox ñu cër lool séddu ñu cër lool di nit ku yàlla baaxal di nit ku am xol di nit ku humble donc kooku lu mu woote mënuñu lu dul lu mu xat-xat-xat ñu ñëw teew muy Bijou Ngoné mi taalibe Serigne saaliw bi moom moo ko Amadou Diop fif yaakaar naa ne dañoo bokk sëriñ Saliou waaye ñoom it ñu joxante cër Amadou nag daf ñoo jox cër ñun ñëpp moo tax bu xew xewlee ñu ñëw toog waaye lii itam niñ ci mën a jàngale mooy wan mooy wan xale yi liggéeykati télé yëpp ne rajo yëpp ba doo ba tey FM lañu sant kii nag sama ex xarit la sama ex copine ngeen di am. lan moo waral ex bi ex bi lan ma moo ko. Euh, du ma a nekk ex xam mooy sama jëriñ ci Sëriñ Tuubaa loolu moom yàlla dogal na ko moom mi day wax nii rek mais man la bëgg. non kii daf may faj kii daf may dundal man kii dama koy wër ko bëgg mais man la bëgg. ñaar kenn. yéen ñaar kenn ku ne ak sa talent macha allah kenn ku ne yaa ngi ko jox sa morom euh, rafetal bi ana ban message pour xale yi nga xam ne ñu leen di bàyyi xel quoi nekk ci aar bi ñoom waa waaw message bi mooy li ma la wax sànq rek na xale yi considéré que ne métier bi ñun ñoo ko bokk mais télé yëpp bi ñu doo ba léegi TV la ñu sant rajo yëpp bi ñu juddoo ba léegi eh, FM la ñu sant te ñun dañuy jàll te télé yi dañ fiy des kon ànd bi nañu ko rafetal ñun ñëpp ñuy tànqee ñoo bokk fi talent nag lu suñu borom di maye la moom moo xam ki ko neex bi du ko ci dëxañ donc bu ñu seppee ci biir 14 millions yi wane ñu ñun war nañ koo rafetal ba xale yi ñëw ñeme ko xam fi ñuy taxaw kii nag moom damay wax ne waxuma bokk di ma bokk ak moom Serigne Bamba mais day nit ku yàlla baaxal di nit di ku mën a jokkale di nit ku mën a defar lu rafet Bijou bu kenn xool li muy wax ci kaw loolu émission la Mamy Diop bul xool xët-xët bi muy def ci plateau bi loolu liggéeyam la mais borom xol bu rafet a ngi nii toog te maa ko seede. bisu sa doomu nday moom itam wax na loolu yéen ñaar xam naa yéen ko seq. ay ay heure lay waxtaan ak moom moo ma gën téeméeri junni yoon bu nit ñi naan réinsertion ci jigéen ñi moom moo tax ma ma ma xam ko wala ma ci tàmm wax dëgg yàlla ci ginnaawam la ñuy def donc baax ak xol bu rafet ci moom la ay millions lay jël di ko def di tabax di ay. Euh, dëkkuwaay yoo xamante ne prisonniers yi bu ñu génnee fa la ñuy nekk donc borom xol bu rafet rek ko mën loolu c'est pas appelé à tout nga def ko donc dafa am tolluwaay am am tawxiit bu la yàlla di may ba tax nga mën a dékku loolu parce que lu nekk nga ciy gis waaye dañuy sant rek ci boole gi nga xamante ne yàlla boole na ma ak moom ñuy wax ay heure yàgg nag lu ne dañ koy waxtaanee ba bi donc wax dëgg yàlla. Euh, damay sant et puis taalibe Serigne Touba la mënul woon demee neneen mënul woon mel neneen waaw waaw li gën Serigne Touba ko moom waaw donc dañuy sant wax dëgg yàlla euh, ci ci ci li nga wax lépp rek waaye waaye question boobu moom neex na lool waaye denc ko tey Amadou Gueye Fifty dafa woote ñu nekk ci cinq ci troisième édition ñaar nakkat na bi leen jaay dara yow tënkul ci Amadou Gueye Fifty ak ñi la ñi ñu fi indi sant Serigne Touba moo ñu fi indi non bàyyi mu set ah sëñ Tuba amul lu amul marché ne vous marchandez jamais si vous volez plus que de l'or ñoo raw ay jama xay yow bu ñoo gis de waaw li la Bijou wax rek moo ci nekk xam nga bis bu nekk nay tolloog borom tey Amadou Gueye Diop 50 moo woote waaye woote bi li ci gën a neex mooy mën ngaa woo ay nit sax ñu déplacé woo dëkk dëkk ñëw fekk si la ñëw nga sàggane leen waaye teraanga ji dafa doy ba nit ñi di daw waaye nag dafa jëfal ku jërëjëfal muy Serigne Saliou ndax daf ne woon jox leen man ndaw ñi ma def ci ñoom waaye bañ ko joxee ndaw ñi def na ci ñoom jàpp naa ne ndaw ñi nga xam ne gisante wuñu woon ak Serigne Saliou sax ñoo gën a mën a def ci moom preuve baa ngi ni bi bijou te fifty itam xam naa ne bu fekkee ne gis na Serigne Saliou li mu ko gis bariwut waaye terewul tey li mu jëf tey ci Serigne Saliou gone mënu ko cooma mënu ko fifty du gone kenn nañ ko sóoraale ci yoon wi yéen ñaar léegi yaa koy tàggool yéen ñaar kan mooy tàggool morom ji euh, Bijou may tàggool Serigne Touba rek la ñuy tàggoo tey waajal màggal ne ci jëf su ne nii stress boobu la ñu am de du leneen merci jërëjëf.